ci koor yi mbooleem jaboot bi baaxoo di ci tase ak ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha muy bisub ziar waaye bisub déglu ndigal ci sëriñ bi nga xam ne mooy jëwriñ bi Daaru Xudoos ñu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ñu di ko am nag ak diwaanu murid yi ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gi yëpp ak daayira ak mboolem taalibe yi mbokk yi suñu jotaayu tey bi dañ koy ci ñeenti tomb tomb bu njëkk bi dañuy jox Serigne Cheikh Lo daayira mu wax ci turu diwaan bi dalal mbooloo ñaareel bi ñu jox Serigne Ibrahima jëmb mu wax ci turu njabootu Sëriñ Dame Assane ak turu mbooleem jëwriñu kër gi ak seex si yëpp rek ñetteelu tomb Sëriñ Seex Njaay lañ koy jox mu wax ci turu président diwaanu Mouride Sëriñ Ousmane Mbacké wax ci turu diwaan bi ak yecaan yi ñeenteelu tomb bi soññee lay doon comme ni ñu ko baaxoo defee Sëriñ Ahmadou Njaay Geraat moo koy jottali bu noppee nag ñu maase ànd teewlu sëriñ bi ci ay kàddoom yi nga xam ne moom la ñuy dégg ñu door a yeewu bu incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi ñu ngi teew yépp. ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Ousmane Mbacké ñuy di wax mooy dina. di leen dalal jàmm di leen sant ci teew gi nga xam ne moom ngeen teew ci bis bii ñu àndandoo ñun ñépp ginnaaw teewee di nuyu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi toog mu Cheikh Ahmadou Moukhtar di ko siyaare ci turu mbooleem buntu kër yi njabootu Cheikh Moussa Faye ñëpp kenn def ak ci turu jëw ji nga xam ne ñoo nekk ci kër yi muy seex si ñoom ñëpp ñu ngi toog ak daay seeni mbooloo jëw ji ñoom ñëpp ñu ngi toog noonu de ak ñoo ngi ànd ak ñoom ñun ñëpp di fendale waa sunu cofeel sunu yaakaar ak sunu njëbbal Cheikh Mamadou Moustapha te foofu mooy seen Ahmadou Moukhtar tey ñu kaw nii di la siyaare di fas yéene déglu sa digal ñi nga nu digal moom rek la ñuy def ndax kër moom benn baat rek la na ko sëriñ Xaadim waxe woon ne benn baat benn baat benn baat yaay Cheikh Moustapha ñëpp a ngi kër yëpp nag kër yëpp a ngi képp ah noonu lay baax day ñaan suñu borom tabaraka wa taala yal na la suñu borom defal dund koo xam ne dañ doon dund bu yéen te man da wér na ko jën kilifa ne ko maa lay ñaanal suñu borom defal la téeméeri ak ñu tofal ànd ak bëréb dem loolu yi ñoo ngi ko ñaanal sëriñ bi mbooloo bi ñëpp mboolem ñi fi bokk teew kenn ku nekk xolam la ca nekk mooy li ma wax mooy waxtu nekk ñoo ngi ñaan suñu boroom ah rusul ki defal loo xam ne dana doon yéeme ci dund ànd ak wér ba li ngay ba yéene li nga Cheikh Moussa lépp nga defe ko nan ko bëggee sa naan ko yow ci barke Cheikh Moussa ñëpp a koy ñaan di la seeree it nag ci suñu jëw ji nga xam ne moo nekk ci kanamu mbooloo mi mbooloo mi waxoon na naa jot li ay seere ci suñu jëw ji muy sëñ Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma dafa wàcce boppam ba tollu nun kenn ku ci nekk buy wax ak yow day day mel ne kuy wax ak moroomam ñëpp ay moroom la mu def te du suñu moroom moo nu gën lépp ndax maamam lañu yaakaar ñun ñëpp ki nga ki nga yaakaar maamam mu wàcce boppam ba tolloo yow kooku kenn mënu ko fay mbooloo man nga ñu lay seere ni ñi mu jiite mbooloo mi rafet na xanaa ñu dolli ñaan rek ci ñëpp dool nga dolli ko ñaanal bu baax ba liñ ci yéen lépp ak li ci mboo mbooloo mi yéen yépp ak mbooleem njabootu Cheikh Moussa yi mooy bunt kër yëpp ña fa nekk yilif kër yooyee ñoom ñëpp ñoo bokk yéene ji mu nekk leen ñu ànd ak moom topp ci ginnaawam fu mu nu joxoñ rek loola la ñuy te mu ngi ci eh, eh, taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu yéemale ah, kon sëriñ bi loolu mbooloo mi dañoo waxoon ne nan nañ la ko seereel ci sëriñ Ousmane Mbacké noonu it li nu war nun taalib yi yépp ak eh, mbooleem jëw yi mooy surtout nag daayira yi nanu fexewaat nag fabuwaat ndax li gàllankooroon lii ba defuñu ko ñaari at yi ñëpp gis nañ ko mooy dañuy mën a wax ne saytaane si duggoon ci adduna bi la euh, bëggoon na a tilimal pas-pas yi ba sax bu ngeen seetloo am na pas-pas yoo xam ne tilimal nañu euh, noo ngi ñaan ci barki Seex Musaa sëriñ bi nga ñaanoon euh, tax maanaam pas-pas yooyu yi nga xam ne da doon tàmbalee am xumaag xumaag boogee nga fóotal nu ko ci ba mu set wecc ba ban mën a fabuwaat Euh, jaajuwaat yokkaat ko bi ba li nga xam ne moom nga bëgg ci liggéey bii ba tuddee ko diwaanu Mouride ñu ñu defe ko na nga xam ne ni ñu ko bëggee te mu def ko bëgg ko Cheikh Moussa Ba donc sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. daal di ngi yëkkati kàddu nuyoo ak ziyaar boo jógee ci sëñ Abdou Khadir xalifa sëñ Xasan doon leen wax kàddu nuyoo boobu ak siyaar ak fedd yi yépp mu di ko jéggee ci sëñ Ahmadu Moxtaar li fi toog yàlla fi yàgg te ak gale ay mébétam ci diine ji ak yoon ak bokk bi ak réew mi yépp te mu ànd ko moom te mu ànd ko moom itam kilifa bu baax bii fi nekk Seexna Ahmadul Xadiim di Seex Muhammadul Muntaxa ak njabootu Cheikh Ahmadul Xadim yëpp radiyallahu anhu kon sëriñ bi sëñ Abdul Xaadir ñu ngi lay nuyu lu bare baax yabal na mbooloo mu tam sëriñ Bunda Njaay nekk ca seen kanam ngir wuy si woote bi ni ko baaxoo di ko wuy si di ko ànd ak yow ak mu jot di fàttali moom tam sëñ Abdu ak mboolem njabootu sëñ Dara Sam bi mu àndal seen njëbbal seen kóolute seen kóllëre seen yaakaar yi nga xam ni dañ ko fee fekkoon way jur ya àndoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha radiallahu anhu bañ ko gisatul ànd ko ak sa mag yu baax yi ko fi wuutu ñu di ko doonante ba mu agsi ci yow yàlla dogal mu taseeg yow ak xilaafaam ak njaboot bi kon ñu di fedd bu baax a baax di dëgëral bu baax a baax loolee jiitu woon fas yéene koo dund fas yéene koo dundal ngirum dundal ànd ko njaboot kon gannaaw loolu yi mboolem cheikh si dañu maa jox seen kàddu kon bu dee mboolem cheikh si kàddu gi day jóge ci sëriñ Mbàkke Géey Ngàcc mi nga xam ni mooy jëwriñu cheikh si sëriñ Mbàkke Géey Ngàcc nag buñ ko waxee Serigne Ndiaye Guèye mooy ndawam li mu yabal bu waaye nag sëñ Xaadim Gaye moo ko fi nekkal fii gannaaw dañoo nekk ba gàcc gàcc ak fii dafa sori yoo tax na kon sëñ Xaadim Gaye moom lañ dénk seen kàddu sëñ ga Xaadim Gaye nag mu ngi nii toog ànd ak njaboot bi yëpp kon day mel kàddu gi kàddu ma kàddoo ma ma di ko ko jot bi kon mboolem seex si ñoom itam noonu mu wax rek ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo bu jóge ci sëñ Mbàkke Géey ngàcc ak siyaar ak fedd li kóllëre ak yaakaar ak njëbbal di ko jëme ci yow sa jëm ju tedd ji di ñaan suñu borom tabaaraka wa mu yàggal na ci suñ kanam mu yàgg ci sa gannaaw te lépp loo mébél rek ci mbooloo mi te mooy li leen jariñ ak nag aaxira suñ defal na ko ba mbooloo mi nangoo topp sab joxoñ bay tax li nga leen yéene ñu am ko loolu suñ boroom mi ko man yàlla na la ko defal am nañ ci yaakaar nag ndax saa mbir moom saa boo dee gis ay jéego yi jëm kanam da yaakaar ni rek lii dana àgg fa jëm ndax jotaayu tey bii dañ cee seetlu loo xam ne lu am solo la te wax ji day yoon soññee ndax seex si ñi ñu ànd tey ànd duggandoo ci jotaay bi toll ni ñu at mu jot bañ dalee woote woote beeg léegi maa ngi fi doon ñëw waaye damay seetu ni dawuñu ko defe nii xëy na kenn ku ne danga daa jógee rek fa nga jógee ñu tase fi waaye nag joxante waxtu tase bokk tool ànd dikk tool loolu lu am solo la te ñoom seex si loolu rek noonu lañ war a def ndax nag ñoom dañuy war a xam ni ñooy soldaar yi kër gi nga xam ni ñoo war a kër gi bu demoon ba jaaxle nit ñoo war a taxaw fexe ba delloo si jàmm fexe ba delloo si ak dal kon daa mel ni ba nga xamee ni sëriñ bi ñu ngi boole sunu maam yi ak sunu waajur yi ak mbooloo mu topp ci ñoom ngir rek ñuy taxawu kër gi di taxawu lépp moo tax mag yi nag lañ waroon a ne nekk nañ ci ba jóge fi yàlla dogal mu des fi kon nañ laxasaay waat góorgóorluwaat fas yéene li fi mag ñi bàyyi ñu jëlee ko bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa ak gën a sell gën a tedd di ko teg say di la sant bu baax a baax a baax a baax a baax ci ndigal yi nga ko jox di ko beesal gàmmu lu bu ne ak politique bu mat sëkk boo ko àndal nee na loolu mi ngi ci sant bu baax de ci ñaanal bu baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa mu guddal saw fan wéral la ba yéene ji nga am ci Cheikh Mamadou Moustapha ak yoon murid yépp nga àggale ko bi jaay Seydou wu jot sëriñ bi itam nee na muy sëñ Ousmane nee na mi ngi sant itam mbooleem kilifa yi Daaru Xuddoos ndax ndigal li bi mu jógee ñoom ñépp ko ànd ak moom kenn desul kenn ku ne di soññ sa waa kër ngir ndigal li nga ko jox mu mën a antu nee moom itam mi ngi leen di berlum nuyoo di leen sant bu baax a baax a baax a baax di sant cheikh si ndax ñoom itam ndigal lii daa mel ne dañ koo jëlee seen bopp def ko seen yëfi bopp su jógee jamono bi dañu koy woo di ko soññ fu mu toll nee na kon mbooloom cheikh si yëpp ñu ngi leen di sant comme ni ko sëñ Ibra jëm bu waxee kon ñu ngi sant ñëpp daal ci cheikh si di sant itam bu taalibe yi nga xamante ne nag ñooy nekk di doxal liggéey bi ndax kilifa yi wax ak ak seex si yëpp taalibe yi ñoo nekk suuf di doxal liggéey bi nga xamante ne moom nga ko sant moom nga koy defloo tam ànd ko ñoom. ah muy fàttali nag ne diwaanu muridina ci sa kàddu lu jóge ci sa ndigal la jóge yaa ko santaane jublu woon ci itam lëkkale mboolem kër yi seex Mouhamadou Moustapha yi lépp loo xamante ne moo aju ci kër gi ñu di ko toppatoo di ko saytu. rawatina màggalu mu muharam bi ñu di ko saytu di ko toppatoo di ko organiser di ko jéem a def ni nga xamante ne noonu la ko mag ñi baax ñi nga xamante ne ñoo la ñoo la jiitoon di ko defee nga ñëw fas yéene ko feddle noonu ci loolu itam mbooleem jeexitali kër gi lépp loo xamante ne jeexitali Cheikh Moussa ñu jëm koo saytu toppatoo ko ni mu gën a rafet ay anam nee na loolu mooy objectif yi nga xamante ne moom nga doxoon ci diwaanu na di ko soñ jamono bu ne mbooloo mi ànd ceeg moom loolu nag ngir mu doxal ko nee na mbokki taalib yi mu ko àndal ñoom la àndaloo ñu def ko ay ay commission yoo xamante ne kenn ku nekk la nga jëfeetoo yaa ngi ciy a doxal na nga ko mane ngir jëmmal euh, ndigal li la ci jiitu mooy waa commission culturelle ñoom day wax dëgg yàlla ñu ngi jéem a lëkkale buntu kër yi Cheikh Moussa Mouhamadou Moustapha yi ndax bu màggal gi xëy na ñaari at yi moo jàll mu xaw na am ay tolof tolof comme ni ñu ko waxee léegi ci li fi xewoon waaye buntu kër Cheikh Moussa na noonu topp kër gu ne ñu dem fa waxtaan ak waa kër ga andi waa commission culturelle bu kër ga ñu waxtaan ci doomu Cheikh Moussa wala waa kër Cheikh Moussa googu bi nu paree waa commission culturelle bi jéem na noo dugg ci yeneen kër yi Serigne yi fenn fu nañu invité commission culturelle ba fa nekk ñu ñëw waxtaanal leen ca kilifa googa waxtaanal leen ca ay jeexital ak digganteem ak sëriñ bi nee na def nañ ci lu bare bare loo xamante ne xëy na temps bi dafay xaw a xat ba dis ko war a mën a euh, waxe lépp ci loolu itam am na li ñuy wax commission sociale ñoom itam ñu ngi góorgóorlu baax kenn ku ne xam ne ne suñuy jub màggal gi da gis mbale mu mag set setal xamante ne ñu ngi koy waajale màggal gi ni ko Cheikh Mahamadou Moustapha daan defee ñu di ko ci barkeeloo di ko def at mu ne commission sociale boobu ñooy def seen i défense def seen dëbët ba ñu fas yéene ba dëkk bi setal Daaru Kudóos satal liñ mën a setal ci dëkk bi lépp itam ak képp koo xamante ne mu ngi fi di mbokkum taalibe ñu yëg ci moom ay jafe-jafe dina ñëw jox ko ci sëñ Ousmane ñu seet nu ñuy def ba dem ca moom jafe-jafe yooyu ñu seet lan ca man ñu de ñu dugal ko ca ak leneen nag yenn yoo xamante ne waa commission sociale ñu ko doon def communication itam gis naa ne jamono bu ne ñu ngi nii taxaw ànd ko xarala yu bees yi fas yéene ba li nga xamante ne mooy xew léegi lu waaye di def dana ko def ci communication def ko ci xarala yu bees yi ñoom itam ñu àndante jaayante ci ginnaaw sëñ Ousmane di jéem a doxal liggéey bi ni ñu ko war a doxalee népp nee na itam ñooñu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ak si itam li nga xam ne mooy commission finance ñu wax ne liggéey bi luñ ko bëgg bëgg a liggéey faw mu am ay koppar yu ndaw yoo xamante ne moo koy def waaye bañ ci waxtaanee ne ñu ne koppar yi jërul bari nan ko barkeeloo ci ñaar fukki ak juróom-ñett ñu ne taaliba bu ne ñu ngi jey ñaan ñaar fukk ak juróom-ñett weer wu ne wala bu fekkee at mi jeex na muy 1680 ñu def ko. loo xamante ni addiyee ju ñuy jëbbal sëriñ bi ndax sëriñ bi naan lu ñu fi dajalee moom du lu ñu koy jëbbal waaye lu ñuy ci liggéey bi la kon ñu xam ne yooyu ñuy laaj mooy li doxal liggéey bi mooy li doxal màggal mooy li doxal li nga xamante ni commission culturelle ak lépp lu ñu fa a def kon nag ñu di ci ñaaxaat ñëpp di ci góorgóorlu bu baax a baax a baax di xam ne loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy li koy doxal xëy na nag ni nu ko bëgg a guddale bëgg koo faram-fàccee temps bi du ñu ko may waaye am na ñu ñëw suñu ginnaaw ñoo xamante ne noonu gën a am fasaatu kalaam danañ ko gën a leeral ñu ko bëgg a leerale ah wax itam soññee bi ndax euh, ñaari at yi jàll nga xamante ne dafa tolloo na Covid bi xawoon naa xaw a sooxeel tuuti yëf yi waaye nag yëpp sëñ bi moom yëfi kanam rekk la amul ginnaaw kon nag ci turu sëriñ Ousmane donte lot nañ ci loolu tam waaye ñu doon jëmale jottali kàddu yooyu ci turam ah di gërëm ñëpp di sant jëpp di wax ne wax dëgg yàlla ñu ngi sant wasalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatu ñu jéggul lépp wasalaam سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar kenn ku nekk am nuyu ak ziar ñu mel moom ak waajuwaay bi la suñu noo ngi leen di ñaanal yërmande borom ak njëggalam barkeb Sëriñ Tuubaa suñu yéene ci gën bu doon jëmm ñeme nañ ko indi ci penc mi bu doon kër ñeme nañ leen koo wan xatul ñaawut te wa kafaa billaahi shahiida sëriñ Ahmadu noo ngi lay nuyu noo ngi lay ñaanal ci sunu borom mi nga xamante ni dara tawul te lépp ak ci loxoom yàlla na nu wan kéemaan fan ci sa jëm dem ànd ak wér ak wërsëg bu yaatu ba li nga naan ëmb ko ci aw yiw nga tasaare ko ci bindee fi barke sëñ Tuba noo ngi lay bëgg bu baax a baax noo ngi lay sàggoo itam bu baax ci sa yitte sa baax sa labiir te loolu toog gi nga toog jataay bi waralu ko noonu nga mel mooy sa jikkoo gis nañ ña nga àndaloon di jàng alxuraan te Daaru gis nañ ñi nga fi àndal diggante bi di sàkku xam-xam ba nga nekkee bitim réew yi gis nañ ñi nga fi nekkaloon te ñooñu ñëpp seen seede benn la benn rek ci sa mbokk suñ maam moom moom Seex Muhamadal Faadal dégg naa ko mu wax ni sëñ Ahmadu nii mu mel noonu la mos a mel naka jekk ba ba nekk bitim réew moom rek moo fi fay wursam indi ko ñu di ko topp di ko lekk ba jeex loolu lu ko wat te loolu lépp dafay dëggal rek kàddu ga ma jur ku ñàkk jot du jur ku yafuus te loolu xam nañ ko ci ñi jiitu ci barab bi xam nañ ko ci ci sab jataay kon yigéen soo ñu nga wóotu ci barab bi yàlla na soo fan gudd Sëriñ Tuubaa ñu ngi sant bu baax a baax te di la bëgg di sant Sëriñ Ousmane ci ànd ji nu ànd ak moom ci liggéey bii ndax cër bi ñëpp am ci la am ci waaye cër ba fee la ko teg mënul nu ko ci lii nii def kon noonu koy ñaanal suñu borom yàlla guddal aw fanam te may ko wér mott li yéene ndax sëñ mënu saade bi dafay wax ni boo taxawee ci mbooloo ni yéen ñëpp laa yemale juum nga ndax koo xamante ni yemalewul ak kenn boo ko yemalee ñëpp mu gën laa gore te gis nañ taxawaay bi mu la taxaw te lu moom doo nga fi ne ci njaboot kon ni am na taxawaay yàlla ba gën nga ñaanal ko ñaanal xas su borom mott li mu moo boole mbokk yi nga xamante ne bi ñoo ànd nekk ci biir diwaan bi ñu laxa sayu dama ko tudd waaye am na mbokk yu àndal na ci biir yàlla xam na te mooy fay su ko defee bokki taalibe yi diwaan bii ñu nekk sëriñ Ahmadu bii moo ko santaan wax nañ ci biir liggéey suñ ko doon natt ci ay at war naa dem ci fukki at ak juróom-ñaar kon du gan ci noonu mébatam tam ak yéenéem mooy foo waajur yi joxoñu mu teg fa tànkam fas nu fa yéene yóbbu sëñ Moussa mi nga xamante ni ñun ñëpp mën nga ko weesu daa ni li ma suñ borom jox mu jëm ci yéen mu ngi nii ma téye waaye duma leen ko jox mukk li fekk boolewu leen seen bopp li fekk boolewu leen seen bopp ci lu leen boole rek lay nekk loolu ñun ñëpp boy na suñu noonu sëñ Cheikh taxawal ab diwaan ci kanam ngir lëkkale yoon bi sëñ Moussa nekk ci jamono suñ tubaab gépp nekk ci sëñ Ahmadou taxawalaat di jëli tur woowa barkeeloo ko ca liggéey booba ngir barkeb liggéey ba ak yéene ya ko doon sam ngir rek nu lëkkatoon doon wenn say sàppi ci gannaawam naan yi fi mag ñi nu àggale ko nu bëgg xoolaat suñu bopp bu baax a baax joxuñu ma kenn waaye kenn ku nekk la bëgg nga xoolaat sa bopp doonu seetu ci sa bopp càmbar sa dund xool rawatina jëwriñ yi jiite mbooloo te mbooloo yépp xalaati sëñ Moussa akub akub sampam moo ko fa bàyyi waaye du luñ doon ne ci bàyyi nu xool suñu diggante ak kii fi nekkal sëñ Moussa kenn ku ne xoolal sa bopp rek natt sa diggante ak sëñ Axma mi ngi nii di toog nun noo ngi nii kenn ku ne nattal sa diggante ak moom ba xam bu ñëpp meloon ni yow moom li bëgg dana ko am wala du ko am bàyyiwuma kenn nag ñun ñëpp laa wax bokk yi bàkkaar du wàll te bàmmeel deesu ko bokk man amila saalihan fa li nafsihi in ahsantum ahsantum li anfusikum man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi bala koo xam nag da wàcc ci biir ko si bàmmeel adduna rumbuxloo bi bari na kër kër ji bari na foo tourné gis si wéttal foo tourné gis ku la ku la wax ak yow waaye wéetaay nga ca kanam boo xamante ne ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax gis nga ni ñu koy xalaate ci sunum xel di ko di tërale yàlla xam na ni wuute nag la am foofa moo tax mu bëgg nu góorgóorlu bu baax baax ci ndigal lii nga xamante ni moom la jox te jële woon ko ci mag ñëw bis bii ñu dàkk di ci daje du bis buñ fortaat ñaari fan ci aw kori ci 1932 la sëñ Moussa woow njaboot gi mu bokkal sëñ Tuubaa ñëpp tudd leen jumaa ji fekk booba lëggéey Ibrahima bi nottu na mu ne leen naalu sëñ Tuubaa wi ci laa bëgg a jublu dëgg mën naa ko tuddeetuma wàññi lu ma am danaa ko ci def lu ma waaye jox danaa la ko ci defal bis boobee lu jëlaat di ko fàttalikoo jataay bii ñu tudd ñaar fukk ak juróom-ñett ci biir yoo xamante awut ci ñun bu waaye ñu néew koy def ndax diwaan bi bañ ko taxawalee yàgg na te bokk yi bu ñu doon tudd résiltat bu diwaan bi am dana wéet lool te yàlla xañunu defuñu tam ni ñu gën a ndóol ci askan wi waaye bu nu ëndul yëngutu bay bari waaye résultat bu am faw nu boole suñu bopp boole suñu doole fas ko yéene jaamoo yàlla loolu rek moo ñu ci mën a génn ñaar fukk juróom-ñett yooyu yi ñu ci tudd itam sëñ Tuubaa lu jóge direct kenn du ko neen moo santaane liggéeyu jumaa ji muy jumaay Tuubaa tubaab yi xamal ko ni ko jumaa ji moom faaw baluñ ko tàmbali dangaa dajale xaalis ubbi compte ñuy liggéey su jeexee ñu arrêté buñ dajale waatee tàmbali fekk ca déwén sa maam Cerno Birahim indi fa ñaar fukki junni ak juróom-ñett sëñ Tuubaa dénk ko soxna suñu wax awasaar ci bëgg léegi sëñ Tuubaa yi la bokkoon soxna awasaar yoroon na buntu am na ñu fa doon jaar sëñ bi laaj la ko wàññi ko muy ñaar fukk ak juróom-ñett sëñ bi wax borom daaru ne ko képp ku aju ci man na joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ku ko mënut ko yor sa kilifteef na la ko joxe ne leen képp ku ko joxe mooy sa njot ci sawar sëñ maam Thierno ne ko ndax ma ne sa ko yaatal sëñ bi ne ko ba kili koro ne ko am konte ñu cay bañ a bokk ñooy waa Touba ndax ñoo ma dëkkal ca dëkk ba ñu ñu am ñaari xas dëkk Touba ba pare ñu ñuy laaj fu ñaar fukk tañ man te lu fi waay yor tuuti tuuti da nga fi bàyyi lu ñuy miraas lu mu tuuti tuuti rek da nga fi bàyyi doon yi lu lu ñu séddoo te loolu du sens ci yooyu rek la ñu sëñ bi ëmbal moo tax mu joxoñ fi mu nu joxoñ kër gi moom ànd lañ baaxoo moom la boroom kër gi santaane moom mii fi nekk moom la bëgg ñi mu seqal kër gi ñëpp loolu lañ bëgg seytaane du bàyyi mukk mission bi jàll lépp lum ci man ci gàllankoor ko doona ko def ndax du retraité te am na doole te suñu borom seetaan na ndax téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni ak ñeent jaar na ci ngir bëgg a jagal àdduna mu tëb mboolem lu yeeg nu jabaawee saabixi rek soxada yépp jaar na ci bëgg a jagal àdduna mu tëb te mel na ko Iblis moom rek moo fi nekk di gàllankoor di gàllankoor ni mu yàqee nag doo ko xam su la yàlla lu ndimbal amoo kilifa bu laa biir te xam te xàmmee te yéwén mën nga caa bañu mucc man ngaa ne ci biir fekk sax la nga nekk du noonu ndax iblis lañu daal fekk kuy kuy nelaw fekk kuy julli mu yor wantaay bi di ëpp kuy nelaw nitu yàlla gis ko ni ko yaa bari jaaxaan kii di nelaw nga di ko ëpp te amoo soxla kii julli mu ni ko noppi li may def xamoo ci dara gis nga kii kii di julli julli gi yàq na bu yàgg waaye koo defal xamul nu ñuy defar julli gu yàqu kii dina law nag borom xam-xam na te bu yeewoo julli gi baax moom lay bañ mu yeewu moom lay upp ndax bëgg mu yàqu foofu la saytaan di toll ak noonu dara mën noo mosul lu dul jëfe ndigal yi suñu borom yi bàyyi tere yi te borom bi tabaraka wa ba mu waxee ni fa aqimu salaata wa aatu zakata wa atasimu billaahi la ca teg yàlla dana julli leen te mooy jaamu yàlla xeet yépp joxe leen asaka mooy dimbalante leen boole leen seen bopp bokk yi nañ joxante loxo nanu ànd ngir yàlla te dimbalante te xam ne yàlla noppi na loolu moo ñu noppal mooy noppal suñu kilifa gii nu àndal pénc mi ne bu jàpp ni kenn dana nu ko defaral kër gii di kër Cheikh bu jàpp ni kenn dana nu ko defaral waaye li tax nu man ko mooy nu ànd rek te mbaar mii nu tiim firnde la ci bi nu lan ko man waaye bi suñu borom indee la ne tam nañu wóor ni coonaay bari waaye dara du tax dox ak yëngutu nag bokkul nan dellu siwaat suñu xel bu baax a baax te dimbali suñu kilifa yi dimbali suñu bopp boole suñu bopp làmb ci suñu wërsëg sàmmal suñu sàndonom yi kër gii tey bu ñu waxoon ci mbooloo mi kenn bu ci nekk li nga fi defoon demal jël ko wallaahi laasim dana am ñu ñibbeeg benn loxo ñoo xam duñ yóbbu dara dara duñ ko yóbbu kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax ñëw nu fi ngir jaayante ñëw nu fi ngir wax kenn lu ko neex ñëw nu fi itam ngir wax nit lu ko naqari waaye day dëgg ñu di ko wax alxaqu min rabbikum man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur sëñ bi waxloo ma ko bokk yi waxloo ma ko waaye maa ko dund ne ci biir kër gi di ko dund di ko xam muy loo xamante ne ni jëkkut jaaduwut yaa fi gën téewuta ami nawle nañu xool yeneen buntu kër yi ñu bokkal sëñ nanu dimbali sëñ bi ci liggéey bi mu liggéey nanu dimbali sëñ Ahmadu ci liggéey bi mu liggéey te nun rek loo ko mën a dimbali nun njabootam noo mën a takku nekk ci gannaaw bu ko defee lu seen ñeme koo song waaye nii nuy doxe moom fa la yàlla na suñu borom doole dimbali yàlla yàlla taxaw yàlla na suñu borom dox suñu digg ak saytaane ba li sëriñ bi bëgg ci ñun nu man ko wasalaamualeykum wa rahmatullah di la bu baax a baax dégg nañ ci nee na ngi leen di xamal ne yàlla dogal na bég na ci bis bi ngeen wuy si woote bii tey. koy def nag ci diggante bi. xam nañ ne sax xaw nañ koo gëj a def ngir li dox ci diggante bi ci ñaari at yi ñett. xam nañ ne li leen ko yéen a nga na ngeen ko téye mu gën a dëgër. tabaarakallah. ñëw ci jotaay bi rek xool mbooloo mi xam ne. nee na jotaay bi ku fi teew gis mbooloo meeg yar beeg yi nga xam ne. liñ bëggoon te yéene ko mi ngi dox bu baax a baax. te wiisuwul àndandoo bi. nee na melo bii ngeen amee ak ñëw gi xamee nañ ci ne yéen ñëpp daje ngeen. daje ngeen bokk yéene bokk pas-pas. te loolu mooy li nga xam ne mooy liy dëgëral kër gi te li dëgëral kër gi mooy dëgëral dëkk bi te mooy dëgëral lislaam. nee na loolu yi ñun ñëpp am nañ ci yéene. moom it mi ngi seede ne yéen a ngi ciy def seen kéemtalaay kattan ngir tabax bii gën a dëgër. kon nee na mi ngi borom mi fi toogal seen taxawaay yi gën a dëgër. nee na mi ngi ñaan suñu borom takku seytaane doon pexeem bañ cee tàbbi. mi ngi leen di fàttali lim leen la fàttali rek. te mooy li nu fi indi te bàyyi nu fi te mooy góor góorlu ci jaamu yàlla topp ndigal yàlla yi moytu ay tereem te xam ne yàlla dañu fee bind andi nu fi ngir nu jaamu ko nee na ko fàtte mukk nañ ciy xalaat guddi ak bëccëg te di ci jëfe suñ kem lay kàttan nee na nu gën a dëgëral gën a fonk li nu boole nag gannaaw ci biir lislaam muy yoonu murit wi muy topp ndigali sëriñ bi te mooy lii lislaam digle ak li mu tere mooy njàngaleem sëñ Tuubaa rek nee na buñ ko buñ ci jaaree téye ko bu dëgër tab sax ci dakk bañ cee jóg sunu xel war naa mën a dal incha allahu sëriñ bi ne mi ngi leen di fàttali it ndigalul xalifa bi di kilifaam muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa Bachir muy Sëñ Tuubaa liggéey bi mu woote te at mu luñ ciy jëf loolu taalibe yëpp. taalibe yëpp ak kër yëpp ak daara yëpp am luñ cay jëf. nee na waa daara yi sëñ Moudou Moustapha moom mi ko jiite tey mii la koy fàttaliwaat. ngeen góorlu ci ngeen góorlu ci defe ko nañ ko daan defe wala mu gën a pësté fu jëm ci kër sëñ Touba jooyu kër Cheikh Moustapha. am lay joxe ba ko jox sëñ Ousmane. nee na. ku am lay joxe. képp koo xam ne. nan ko jox Serigne Ousmane Mbacké jëwriñam jii di doomam. muy kilifa yi. muy kilifa yi. jox Serigne Ousmane. nee na daal lépp lu waay di joxe mu jëm ci addiya ji jëm ci kër Sëñ Tuubaa ci liggéey Cheikh Mountakha boobee. na ko teg ci loxo Serigne Ousmane Mbacké moom moom la ko délégué. bu dajee dana ko indi bu dajee dana ko ci loxoom. nee na muy bokk ànd ak yéen jébbali ko Serigne ba. nee na loolu yi mi ngi leen ci ñaaxaat di leen ci soññaat. nee na lu waay man kem talaay kattanam na ko def ci liggéey boobu jëm ci kër sëñ Touba. màggal gi ak séegu saxwaay ngeen waajal ko. nee na mi ngi leen di bàyyiloo xel màggalu xisruna muharram ak sax waaye nag ngeen di ko bàyyi xel ci waajtaay. ndax ndigal loolu. ndax day ndigal lu fi bàyyi. te ndigal moom kon saa su ne téye rek ndigal jëfee rek nee na mi ngi leen koy fàttali ngir ñu gën koo dëgëral. asalaamaaleykum. mu ne kon. asalaamualeykum wa rahmatullah nee na xam leen ne ci turu siis bi mu toog muy siis boo xam ne li fekk addunaa ngi dox mooy siisu sëñ Moodu Moustapha ku fi toog rek yaa yilif xadratul xudusiya yilif njaboot gépp tey bi ci toogee nee na mi ngi leen di sant yéen ñu jamono teel mi ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax leen soññi bu baax a baax jërë ngeen jëf. loxo yi na taal loxo yi. ok na taal loxo yi na taal loxo yi ani micro bi. waaw. loolu la bëggoon a